inna lillahi wala inna ilayhi rajiun ñun ñëpp ci suñ borom lañu jógee te ci moom la ñuy dellu bisimilah rahmaani rahim euh, dañ fi ñëw ci tànku mbokk euh, ndax euh, bi ñu président yónnee ba pare man ak ministre directeur de cabinet Augustin Tine pour ñu ñëw représenté ko fi ak ñu délégation ministérielle bi fi nekk yëpp. ci mbiru gouvernement day ma ñëw tam ci wetu sama sœur sama cousine di présidente aminte Touré Mimi Touré nga xam ne ñoo bokk fu ñu cosaanoo di Gossas papam pama di di nijaay ci man euh, ñu ñëw taxaw ci wetam ndax euh, xarit du rek ci lu neex bu naxaree it ngeen bokk ko te mën nañu wax ne suñu jigéen la suñu cousine la suñu xarit la donc lii bu ko dalee dal famille am yëpp ay magam Sen taawa gi nii toog sama wet ñuy jaal famille bi yëpp di ko jaal di andi njaalu président de la république Eh, tek ko ci loxom di ñaan suñu tante bi fi joggé tante nafisatu sow yalla xare ko aljana euh boole ko fa tek ko fa ci wetu njabotu sayyidina muhammad mom ak suñu nijaay madi wuture yep ak mbokk yi ñi fa jitu looloo suñu ay tànk nekk tànki mbokk euh, nekk euh, tànki it euh, kóllëre ak tànku famille ñu ñëwoon indi njaalu président Macky Sall ah andi it suñu njaal ñu koy wax it ne Gossas googu ñuy bokk Gossas yëpp tey ñoo ngi ci wetu famille Touré famu du Touré ak euh, famille tonton Madiou Touré ñu ànd di leen jaal euh, suñu tante Nafi Sow jërë ngeen jëf